lay tee maa jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommalul soxna jaara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 ñoo ngi fii ci barabu soxna su tedd si ci biir barab bi barab bu tedd yaa ngi gis euh, mbokki taalibe yi ak euh, zuwaar yi ziyaarakat yi ñoo teg ko nag ci ay normes yu yu yu dëppoo ak lislaam ber jigéen ñi ne ber góor ñi na leen comme ni ko gisee woon ci bitti rek euh, ci extérieur bi da ngay gis ne ñaari sàppe lañ ko def sàppe góor ñi ak sàppe jigéen ñi di wane ne ah, sëriñ bi moom sunna rek la fi bàyyi Euh, lu yéene yi rëy rëy rëy ci wàllu siyaar dafay dëppoo nag ak norme yi nga xam ne moom la lislaam santaane ci foo xam ne fa la aw julli daje euh, soxna jaara lii moom rek lañ ko mënal ndax liggéeyal nañu liggéey boo xam ne euh, amuñu lenn luñ ko fayee lu dul ñëw di ko nemmeeku ak di ko siyaara ak di fi sàkku ay ñaan te barab bii ñu taxaw ci barab yi gën a nangu ñaan ci àddina la bokk te loolu yaakaar naa ñépp am nañ ci am nañ ci am nañ ci am nañ ci firnde yu wóor kon nag ci barke barab bi ñu taxaw ñu ngi ñaanal mbokk jullit ñëpp ak fu mën nekk ci àdduna bi suñ borom defal leen jàmm ak tawféex balaa ak musiba yi suñ borom fanq ko dindi ko dañal ko yaqi iyaliyal waba allahu qataan wa la ilaha illa allahu zulmi maha fa abadan la uzlamu wa abadan yaqaafu nii man zalamu ñu ngi ñaanal mbokk taalibé ñëpp ñu ak tawféex production leen wax ne poroxaana ngoog kenn desul ah di ñaan ñu ko fekkee waaw ah, sëñ Mourtada ah, yaakaar naa daayira bi nga xam ne ñoom ñoo yor ah, liggéeyu barab bi suñ leen mënee gis ñoom it dañ leen tàllal suñu micro weccoo ak ñoom ay kàddu xol daal sedd nañ lool soxna Jaara nag moom suñ Tuubaa booy xool am mbindam danga fekk fu baree bari fu koy tudd danaa koy wax lu baree bari wa an yej si walidayya xayran yaksuru yaa xaaliqan ma chita yaa muassiru moom ak sëñ Maam Mor Anta Sali da leen a bàyyi woon xel lool gërëm leen ba ñaan na fu bare bare di wax suñu borom nanga leen fay aw yiw waaye boo demee ci sindi di ca mujj ga danga fekk ba bayit woo xam ne daf koy eh, sàkkul njéggal ci boromam ak di wax boromam mu yërëm ko te di wax ak boromam yit ne ko soxna jaara de amul kenn ku dul yow laa taxtabir haa bi ma laysat bi qaadira wala tuxayib rajaha fi ka yallaahu wax na ko it ne ko bul ko nattoo te tas yaakaar ji nga xam ne it moom la am ci yow wax na ko it ne ko na ko nandal ci maawul kawsar ah, wax na ko it ci sindiidi ne na nga ko yërëm te ñeewantu ko nang ko jéggal jéggal ko ay bakaaram jéggal ko léppam soxna jaara yetullahi mariama bu sa moo ngi noonu ah, di ab roy mat sëkk mooy suñu sayidatuna mariam fusti fusti bi darfil xasanaat damay wax ne buñ ko dee jàng Euh, daanaka man soxna jaariyatullaahi rek euh, moom lay janool ndax euh, mboolem moxsinaar yi man day seen ndab la leen ëmbu soxna jaara mii la def na ci lislaam loo xam ne ba àdduna di tukki kenn du ko laam-laamee kenn du ko sikki sax yàlla nañ borom tax si barke